comme que sama ginnaaw wóolu du gang ndax man neexuma daan waaw moom see xam na loolu xam ne bi ñu demee neexu la bëre léegi bu ñu jógee sa combat yow ak euh, Cheikh Super Diamono day ñëw sa combat yow ak ki nga xam ne ni moo di Petit Lo lan moo la dugal si Petit Lo waaw Petit Lo combat la rek xam nga ñu wax ma nga fay ma lu ma arrangé moo tax nag sama staff ñu jubóo si xam nga ndax la maanaam temps bi xaaruñu te loo toog rek atelier dina dem maanaam du la faar kon bu ñuy fayee du ko jar te ñu jubóo moo tax sama staff mu nekk combat xam ne combat bu jaadu la waaw ñu jël ko biir rek ndax temps bi xaar ñu quoi. mais gis nañ xam ne moo di moo Petit Lo bëre bi bëre bi si papaam yëpp mi ngi si moom bëre saay-saay beeg rapidité beeg cokkaas beeg mun tooñ bi yëpp nekk si Modou Lo yëpp mi ngi si Petit Lo que ba ngay jël Petit Lo xalaat nga loolu noonu yëpp. waaw li ma waxoon laay waxaat rek maanaam Petit Lo tey boo andee Modou Lo ni Petit Lo ça fait deux bokkuñu te maanaam man yooyu bagañu ma man caare gi laa dëkk dëkk ak ay champion gën a naqaree biral ñoo ngi biir caare tey Modou Lo maanaam mi li gën a xare jaaree géej la ko amee du taay di ko wax ndax bàyyi ma njoon da kaa daan am na fi ndam mais njoon da kaa ba tey ji ñu koy féete kon maanaam Petit Lo maa jaay man du ma bagaj te du xeex ba du bëre ba. xeex ba. du xeex ba du bëre ba. bëri. wallaay li may wax ni làmb ñu ma gën a xam Petit Lo bi may xam. li ma wax ni Petit Lo du xeex ba du bëre ba. maanaam dàq bokkuñu. billaahi wallaahi tallaahi bu ma yàlla jàmm rek ma ñëw yàlla may ma jàmm ma nekk sama ma ànd ak sama conscience tranquille li may bëri du waaw wax dëgg tey maanaam ñi jël bu ma jëloon amaana man du ma bëri patiloo mais lamba ji moom teggante bi moo métti mais amaana yàlla xam na ne ñi ma waroo man wax bu taxawoon kon du ma bëri ak patiloo loolu du ma taay di ko wax mais nag lamba moom combat yu taxaw léegi rek boo xoolee maanaam nga xam ne làmb la waaw nan la fay lu jar nga waxtaan sa staff bu ñu jubóo si dem bëri ñi. mbër est-ce que xeex bi ngay xeex arrangé na Petit Lo wala xeex bi ngay xeex arrangé na parce que gis nañ la sànq sa combat yow ak Cheikh da ngaa jiital pied gauche ba pare di xeex mais est-ce que loolu boo ko andilee ki nga xam ne moo di Petit Lo si am surprise. non man nag wax dëgg loolu sonal ma man mbër tànk boo teg ma damaa xeex ak yow boo teg ma damaa bëri ak yow yàlla may na ma loolu. waaw man loolu dérangé wu ma man tànk bi ma yitteel nii maanaam amul dara lu ma ci ragal amul dara lu ma ci ragal te bu jour ba da nga xam ne maanaam pomme du moroom neew wallaahi bëri lay def bëri nekkatul lu may jàng dama koo mën billaahi dama koo mën dama koo mën tey jafe na ma maanaam ma toll nii xam nga dugg fi ma dugg na ci làmba sama njàmbaar ak sama xarañ ma ma dugal mais nag sant yàlla quoi amul dara lu ma jaaxal làmba. ngay waajalee combat. waaj comme yeneen combat waaj ànd ak samay mbokk ànd ak samay am di jàmm tey ku ma ne Ibrahima Junior ay Badou Fall ay Sóora ànd ak mbir caara yëpp wallaahi mais mooy li ma la wax a làmb léegi amatul loolu nañ la fay naaraate rek waaw caara ñoo ngi ko pare bu baax a baax a baax a baax waaw di wax ne caara xam nga lu ñu ko pare doyul ndax combat la boo xam ne nii la combat bu caara yi di préparé ndax combat la boo xam ne nii caara ak parcelle la dër bi la waaw kon combat bu ñu ko caaxaane mukk dër bi la combat la boo xam ne nii combat ñu neex la xoolal brise mer bu jour ba da nga nekk brise mer tey ci xalaat bi dox. lan ngay lan waaw peut li ma koy wax lenn rek kese la ma nga dégg sama mu wax rek maanaam moom man wax lu xamul tey man du ma moroom ci bëre bëre du maanaam bokkuñ si dara li ma waxoon rek maa ko mën ale man ko retour barke alxuraan. yaa ko mën ale. maa ko mën ale man ko man bu nekk lébu laa cere géej la dëkk brise mer 2 damaa judd rek ne passé ndox mi kon bëre nekkatu lu ma jànga fit nekkatu lu ma jàng xeex nekkatu lu ma jàng maa ko man ala man ko retour. Petit Lo ma daan ka ma daan ka yóbbu ma fenn amaana moom ma daanee man yàqu ma daan ka amul fenn fu ma yóbbu yóbbu ma fenn làmba rek ma ma yóbbu maanaam am na combat yoo xam ne tey su ma amoon sax ma def yàqalu ma dara dinaa ko perte nag comme yeneen combat yi yàlla xam na ne nekkul combat boo xam ne dama koy non non. yow wóor nga. waaw mais ni ñuy wax ni tamit yàlla yàlla may ak ba suur ba di nga xam ne maanaam comme du morom nekk waaw fee si mbër bu mag moo ko andi fii ñu nekk bu mag. waaw tey. suñu suñ suñu dégg bu baax euh, kii di papaam roi des arènes moom mooy tur ki nga xam ne moo di Petit Lo. amaana tey sama kom ak gàkku doo moo njëkk moo taxaw boobu amoon mais gàkku man ko ni ko passage yàqool si moom yàqool si man si problème mu la yàqoo. mais mais mais gàkku dóom bu bu amoon amaana sax petit lo maa ma doon bëre mais gàkku dóom wax dëgg yàlla taxawoon na bi yàqoo yàqoo ci biir Zamer yàqoo ci gàkku dóom ci promoteur bi la yàqoo. mbër yi dañ lay moo tax nga may ki nga xam moo di wala du wala loolu du loolu. ah mais nag mbër yi maa ngi lay xamal ne fi mu gën a tàng duñu fa jaar waaw tey am na am na moom wax combat yi amaana bu taxawoon petit bi duñu bëre waaw ah, man lam maanaam dama see bëre ay combat yoo xam ne ay xam ne ji wallaahi su ma entraîné ba taxaw am wér gu yaram sama sant tan sama yaram bu baax amul luy nekk sama kanam ma koy bàyyi xel barka alxuraan waaw tamit combat bi jàppoon nañ ko bu yàgg ma am blessure blessure boobu tamit ma si sant tey ku ma ne bàyyi ma joon senior barki alxuraan ak Ablaye Diop ñoo yëpp seen machine hôpital hôpital yóbbu ma fa fépp fuy faj rek dem naa faju fa waaw ba tey ba yàlla mayar ma tan ma sant bu baax bàyyi ma joon senior barki alxuraan ak Badou Fall tey seen seen dóoru danay sol essence fépp fu hôpital fu dégg hôpital bu baax la ñu bu ma fa te combat bi man bañoon naa ba ne man damay bëre moment boobu mais ñoom ñoo taxaw ne carrément man du ma ndax boobu li may sant sama yaram moo na métti goo xam ne nii mais semaine combat xam nga rek du ma ko bëgg a yàq mais ma dar ne doo bëre il faut nga faju ba wér tamit ma ngeen si sant di sant waa Thiaroye aussi di sant sama gars yi tamit jàppal na ma su baax a baax bu di tamit mi ko xool xam ne fi nekk nii tamit xam nga sant na tan bu baax amul dara lu may sentir waaw di ñaan yàlla mu jëm kanam rek waaw di sant wàccaare aussi wér. kan mooy kan mooy soo royukaay fi nga xam ne mooy mbër yu si mbër fi jot a yaa jaar yëpp yow kan ngay suivre ban mbër bi nga xamante ne mooy sa idole ba ni muy bëree ngay bëree ni muy doxee ngay doxee ni muy waxee ngay xam nga tey loolu day xaw na xarit ndax tey caara yi bari na mbëri yoo xam ne maanaam man mën naa ne mbëri caara yëpp samay nit lan ñëpp dama leen di roy mbëri caara yëpp tey barki alxuraan ba ma fekkee si grand frère yi maanaam ñëpp samay grand lan kon mbëri caare yëpp ku jël nga saay saayam quoi. waaw kii jëlaat si moom bëre kii jëlaat si moom caacaay kii jëlaat si moom xeex te lépp mu ngi caare wala yow maanaam tey su ma nee Khadim Ndiaye numéro un wax naa mbëri caare yépp kooku rek la buuse daa ren kooku kuy ànd moom noo waroo ragal te xeex nekkul looyu tamit loo jànga te ki Khadim Ndiaye kuy ànd moom rek tey dara du la jaaxal si àddina waaw tey mu nekk ma boo xam ne tamit. te bu jour ba boo sama compresse di nga xam ne caara ñoo koy bare wallaahi. léegi mënuñoo jógee si combat si si si si mënuñoo te waxuñ si combat bi nga xamante ne moo am le 24 novembre si diggante Modou Lo des arènes ak ki nga xamante ni moom mooy Siteu tey boo doon analyser en tant que mbër naka ngay analyser combat Modou Lo ak Siteu. waa combat Modou Lo Siteu tey bala ma wax dara dama naan Siteu yàlla na ko yàlla may ndam aussi. comprendre nga. waaw bala ma wax dara dama Siteu yàlla na ko yàlla may ndam maanaam ragal fecc day xañ wërsëg loolu su ma su ma juumul balaa ñuy commencé daal yow Siteu nga jox Siteu daal nga faral daal waaw mais Siteu sama grand la te tey su may doon ndam moom laa jox wax dëgg waaw tey maanaam danoo bokk journée boo xam ne nii mooy sama combat passé nañ xam nga mu conseillé ma tamit jàppal ma si jàppal loo xam ne nii tamit ñun duñ fekk jëf te nit ku baax la wallahi tey ñu ko bu baax ndax na combat boo xam ne nii man naa ne Sénégal dañ ko béré te lamba ñëwagul ndax boo xoolee ñëpp dañoo jël favori jox xamul loo surtout ay champion la daan. est-ce que gisoo Modou Lo fi muy jaar si benn at mu def loo xamante ne kenn defu ko benn saison mu def si loo xam ne kenn defu ko moo tax gars yi jël euh, bi jox ko. waaw champion Modou Lo tey boo ko taxee fi di wax fi ngay fi waaw mooy roi terrain mbër mu jox cër la ndeysaan ndax lépp lu mu am si lamb da ngaa mérito da koo liggéey aussi te tey jàmbaar la Modou Lo jàmbaar la garmi la mais si na gaa yi def très bonne attention si moom ndax depuis gars yi ba ne Modou Lo mu gën a taxaw ba tey Siteu da xalalu tamit ma maanaam ndaw lu jël décision yaa ngi may dégg Modou Lo li ko yi gëm la loolu amul. lan la ko gars yi gëm. yaa man te noonu. ne Modou Lo mënul. non non waa tey xam nga am na lamb yoo xam ne nii yow mbër mi yaa ko jël sa boppam Siteu ko ko xool xam Siteu xam xool ko nga xam ne kii bëgg na lamba kon maanaam ku si wax rek na nga wax loo ndax lamba joo lamba xam ne nii. mi teel yuuxu mën naa jóg fan ko foogoole. fan nga tekkee ne Modou Lo mënul quoi. waaw maanaam si li nu wane ñoom ñaar seen jaar jaar maanaam Modou Lo la gars yi di jox favori ndax li Modou Lo wane pour le moment Siteu wane ko quoi mais dadi làmba ji te bëgg na nga trop te waa jàmm gën bëgg na ko aussi. waaw day xeex day dóore de. waaw mais dara dëkkam dóore fa yoo ko tas waaw ndax Modou Lo tey nit la rek nit ñi ñii waaw Modou Lo tey day dóore ñu koy dóor ndax tey bala ngay dóor fii am lu ko deful. mais loolu yëpp dara lamba rek. mais loolu dëgg la aussi mais gis nañ bëri Modou bëri Modou ku dul ku dul garmi dëgg mënoo koo dëkk parce que Modou kenn xamul fa lay ñëwee foo yaakaaree ne fii la mu génn fa sa des am na benn caay-caay boo xamante ne nii est que caay-caay boobu ki nga xam ne moo di na kaa dëkk. dëgg la ma wax sana Modou Lo ndaanaan la am na caay-caay loolu nekkul luy waxati mais maytul ma xale si jàmm gën mi Siteu dafa jël décision si combat bi. moom tamit kenn du moom. ndaanaan la. borom gauche bi kii alxuraan dafa mën a bëre. bu jugee ñëpp jóg. waaw te tey yor na gauche boo xam ne naka Modou Lo bu baax. boo a jeexal lamba ji. na Modou Lo moytu gauche euh, Siteu bi. waaw ndax maa ngi dégg gars ñu ngi gëm loo xam ne nii maanaam na def très bonne attention maa ngi wax léegi Siteu la te day xeex. mais est-ce que Siteu li mu bëree si compte Momar Lac de Guiers su ko bëree si compte Modou Lo dina ko arrangé. waaw da ngay xool tey Modou Lo dafa bëri Lac de Guiers ba teewoo mënu ko sax laal suuf Siteu dafa bëri Lac ba Lac kon maanaam loolu am jàngal kon nas gars yi bàyyi xel Siteu lu mu andi contre Lac de ba su fekkee tuuti fu mu mënuloo jaay mën a xaatee. moo tax man man Lac de Guiers mooy sama roi des arènes parce que moom laalagul suuf ba léegi est ce que loolu Lac de Guiers victoire la ak ñaata défaite Lac de Guiers moo fi gën